ñëwee tribune yéen a kaay ne ma ma ngay ñëw ma ne ko kuy ñëw mu ne ma Ousmane Sonko ma ne ko bu ñëwee lu muy def mu ne ma xanaa xaañ ma ne ko déet mu ne ma deena day déloger président ma Sall ca palais ba yéen a kaayub dee média bi naan man caravane de la liberté la ko tu dee tuddee naan combat final ba nag ca Ndakaaru lay doon jël Joob Sangomar ndax fi mu ne la ñu may tuumaal Sonko naan defuma ca ma sàkkuuma raflew ma jigéen bay sàkku Sonkoy wax naan sama gat sa gat sa gii dama koy daal di wéyal pare naa nag ngir tayle sama bakkan man Ousmane Sonko te tayle gii dub xaru de damay xeex ak samay ngànnaay yi ma yor ba am dëgg ci kaw président Macky Sall te naan leen bu ma leen gën a gore nañ nangu ñàkk lépp lu ñu am ngir jaamaarloo ak Sall ngaari lam toora bi nga xam ne dafa bëgg jël buum takk suñu baat di watat fii ak suba wala gannaaw suba dara leeraguma ci daal Ousmane Sonko naan lu ci mënti am danaa ñibbi si Ndakaaru ndax nag Ndakaaru dëgg-dëgg jël joob Sangomar fa la jëfi dëgg-dëgg yi di daal di amee cay Ndakaaru Sonko naan dossier politique ci jëfu politique la ñu koy réglé suñu waaxu jëm ca palais ba door na niki tey ngi woo sénégalais ñu daal di mobiliser wu ndax nag viol ga ñu may jiiñ dama caa deful lenn xanaa kay mu sell mi ñu dégg xale yi di ma woowee mooy dagg seen xol naan aji nag na waajal boppam ndax nag fi na ne tuuma yii mu daal di teg dana ko wex xatt moom aji saar wala képp ko xam ni bokk nga ci complot bi fas ma yéene nërmeel yàq sama der salfaañe ko dem ca tribunal ba di ma waxal lu ñaaw jaar na fii ak loxo ba dugg na fii ak nii lañ ko bitër ñeeg Ousmane Sonko naan ku ca tax dana métti ci yow wala ndax nañu moom du yomb mukk libération yéene kaay naan man Ousmane Sonko woote nab karawaan naan président Macky Sall ko ca palais ba nga xam ni fa la nekk gat moom réew mi le quotidien le quotidien naan man Ousmane Sonko daal fi mu ne moo koy lakk moom Sonko woote na karawaanu liberté xam ne dootuñu jéggal lu tol ni tal fatal ay ni président Macky Sall moom jiital Pastef di woo ndaw yi ci ñu génn xeex salfaañi réew mi daal di koy jaxase le soleil yéene kaay naan man boobu président Macky Sall nga tegante Khalifa Babacar Sall bopp ñuy woote jàmm ci réew mi naan dialogue bi talaata lañ koy door ci réew mi vox populi naan man dialogue boobee rik fa sa baaraam ma ñëw ndax maa ci xam te maa ci ëpp doole le mandat yéene kaay naan kon dafa am waxtu wa nga xam ne réewum senegal moo jaxasoo ni wëñ fi ne réew mi dafa lëj neexuta lijjanti yéene kaay bi naan man Ousmane Sonko ngay woote xeex ci digg capital bi Ndakaaru jël Joob Sangomar direct news naan ñi am fit da naan wala gañe waaye dama naan Ousmane Sonko guerre bi nga woote Ndakaaru bés boo ci amulee am yow Sonko jeexal nga sa projet bi dafay lakk ba doon dóom nag la nga woote ci Ndakaaru naan fi mu ne déloger président Macky Sall bu del ginnaaw takk der yi xam nga ni duñ la ca bàyyi Ousmane Sonko ndax wax nga leen li nga fas yéene def ñoomit it geetaru nañu ba dëgër di la xaar ak fi mbir yi toll direct news naan kon usu yaay bañ sa doole ji ak yu ndaw yi fi mu ne takk der yi nga koy jaay te boo ca jële wulee ndam ma ne la waxuma la yow rek waaye sa projet Pastef bi ci boppam mooy tàbbi géej fa yallaaxu lenn daal moo taxaw sa kanam yow Ousmane mooy daal nga am ndam ci kanamu takk der yi lu ko mooy moom Pastef ak Ousmane Sonko dégg la ci xale di am critique yéen kaay naan man Ousmane Sonko daal ma nga jëm ca nërmeelu goo xam ni maar day taali ma ngay patam patamee tàbbi géejam ci ñëwam gii ci ndakaaru fukki at ñu teg ko ci sag du ni la dañ la koy tëj te boo moytuwul ma ni la juge bi daal di dëggal loole ga xam ni procureur moom la sàkku waxtu woowu yow usu nga naan da ngay woote xeex ci ndakaaru Ousmane Sonko fi mu ne yaa jël buum takk sa baat di watat l'enquête ko di jee naan man usu fi mu ne dafa fitu désobéissance la woote ci réew mi naan yoon wa nga jëm yow usu baaxul bëri na xaaxaam bëri na dëkk te bëri nay poto poto Basiru Bey naan kon Ousmane Sonko wàññikul balaa béy di wéy mbuus Ousmane naan kon la Wàdd waxoon daal laay wax ab procès politique daal ci mbedd mi lañ koy daal di gañee te lool la fas yéene Walf Quotidien naan procès bee bëri woon ay ndëgg sërëx sax défense bi tegaloon ko nag boor bee waaye ndëgg sërëx googee tàbbiwun ci te boo moytul nag procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko bii dañ koy tëggaat Le Témoin yéene kaay naan kon waxtu woowu usoo ngay woote cooki fin ci Ndakaaru L'Observateur naan Ousmane daal la mu bëgg moom moo di la amoon mars 2021 amaat fii ci digg ndakaaru Pape Malick Ndour ministre de la jeunesse yéene kaay bi naan koon juumul de ndax nag bataille finale bi dina am ci ndakaaru ndax ci ndakaaru jël joob sàngomaar gii la nuy jeexalee ay waxam yu ñaaw jeexalee ko nag fitna gi nga xam ne moom Ousmane Sonko yéene ko ci réew mi waxtu waaw tribune yéene kaay naan man docteur Alfousseynou Gueye ma ngay leeral nee na mësta wax waxu man yu ci biir tribunal l'observateur mel ni ku naan kon docteur Kieti dafa mel ni ñaari docteur Alfousseynou Gueye moo am ndax digg tribunal ba yaa xam le ni mën la sperme lan ca te ba ko analyser wane ne da doon boobu ay ndawam ña ngay way tuñ-tuñal l'évidence yéen kaay naan man syndicat impôt et domaine ña ñu bàyyi Bassirou Diomaye Faye tribune yéen kaay naan waxtu woowu Mati Sarr ñang yóbbu nañ ko kaso Daouda Gueye bu frappe ñu di koy libéré waaye journaliste bii di Serigne Saliou Gueye boo moytul daañu ubbi information judiciaire ci moom moom taskatu xibaar la ñu naan doo taskatu xibaar mim taal ga ñu taaloon bus yi nga xam ni moo nekkoon Kër Masaar waa ji doon ngénte te jàpp ko la ko dugal mooy moom moo dem ci xaritam wax ko maataal taal bus yi xarit boobee wax ko takk der yi ba ko takk der yi laajee waa ji ne dëgg la maa ko wax waaye daal dama doon ngand ngandalu ngand ngandalu gi nag daal dina koy yóbbu kaso lanket ko di jee naan maan ña taal kër ministre de ce ca jàpp nañ ca kenn di ca wër ñeen F24 ci turbine yéen a kaay naan jàpp gi moo war a dakk ci réew mi ku xef fi mu ne ñu daal di jàpp arrestation yi mel ni tulleeg maa ci réew mi li naan waaye waxtu woowu dialogue daal moo xew ci réew mi moom président Macky Sall ne fan weeri fan ci weeru mai daañu tàmbali waxtaan penco réew mi ki jafe-jafeem acteur politique yi ak yu koom yi acteur socio yeeg culturels yi kilifa diine yeeg kilifa aada yi ndaw yeeg jigéen ñi ñoom ñëpp woo nañ leen ci dialogue boo xam ne teg réew mi ci jub waaye tam tabax Sénégal goo xam ne dina am jàmm dal ñëpp bokk ko lan ci jublu laas yéen kaay naan kon sàll boo leen dialogué wax leen ci tali yi nga xam ne diggante mexeeg kilmaxa kenn mënu caa jaar témoin yéen kaay di ma xamal ne Pape Mademba bi tey day ma ngay joyanti Senelec jaare ca nag di doxalal président Macky Sall ngir mu jagat-jagati jëm 2024 lii ko di jeen naan maan kawteef gaa ngi nii cib daara ñaar fukki xale yu jigéen ak juróom ñaar lañu sàkk wéyo leen ci anam wu ñaaw ka nga xam ni moo leen doon jàngal moo ko def daal di daw ña nga xam ni ñooy waajuru xale ya ña nga yor seeni certificat médical yuy wane ni waa jii dafa violé daal di daw ba nii France daal di xiddeem jàppuñu ko gisuñu ko tribune yéen kaay naan kon ña doon caxat-caxatee suuf sa ca géej waaye